da nga ca jot te bul ragal seen xuppe ya fa in axasta wirdahu axasta wirdal jamii laa taxaafu kabta wal waxda min humu taxuusu thumma la xaafa alayka min waidin musjala daam bam jugee gànnaar ba ñëw fii senegal da koo tasoon ci réew mi mag ña daa ko laal léegi-léegi nit ñëw gàddu wirdu tiijaan mu yee salaat jox ko mu bég lool kontaan léegi-léegi nit ñëw yore saasaliyu mu yee salaat ko def la ab waliyu